Jedes Kind auf dieser Welt, jedes Kind, was in diese Welt gekommen ist, ist einzigartig. Und jedes Kind auf dieser Welt bringt etwas ganz Besonderes mit. Alle Kinder dieser Welt haben das Recht, mit Glück und mit Schutz und mit Leichtigkeit groß zu werden, erwachsen zu werden. Chaque enfant qui est né dans ce monde est unique. Et chaque enfant qui est né dans ce monde apporte quelque chose qui est à lui et qui est très cher. Chaque enfant qui est né dans ce monde a le droit de vivre avec la protection et le bonheur et la légèreté. Euh, bonjour, bonjour tout le monde. Euh, voilà, euh, nous sommes venus aujourd'hui vous présenter un projet qui va se dérouler ici, dans la banlieue. dans la banlieue de Dakar qui consiste à venir en aide aux enfants en difficulté, notamment les enfants de la rue et les enfants dans les daara, les enfants talibés dans les daara. Essayer de les soutenir dans les daara pour qu'ils puissent étudier convenablement le Coran sans être obligés de passer toute leur journée ou toutes les nuits dans les rues pour mendier. Euh, ce projet est exclusivement réservé aux enfants. Mais qui parle d'enfants parle de leur famille aussi. Il y a des enfants dans les rues avec leur famille. Ce projet va essayer d'aider ces enfants-là à sortir de la rue. Mais notre zone géographique, ce sont les enfants de la banlieue, de Guédiawaye et environ. Euh, donc nous sommes en train de travailler dans ce projet-là. et nous sommes soutenus par euh, Madame Suzanne Lafleur, si, euh, qui est allemande et qui soutient ce projet-là. Également, ce projet a un volet artistique très important. Euh, il s'agit de, de Monsieur Issa Diop, un très grand danseur sénégalais qui est accompagné de sa troupe, aussi d'excellents danseurs et danseuses qui sont avec lui, qui soutiennent le projet sur le plan artistique et sur le plan culturel pour essayer de donner une très grande dimension à ce projet-là. Et nous savons tous que Issa aussi est soutenu par un grand chanteur sénégalais, euh, Monsieur Alassane Baye, qui soutien beaucoup Issa, donc, euh, et aussi qui est quelqu'un qui aime beaucoup Donc euh, aujourd'hui, c'est la culture qui vient au soutien aux enfants de la rue. Et c'est l'Allemagne qui donne sa mai au Sénégal pour essayer de régler ce fléau-là qui est le problème de la souffrance des enfants de façon générale, mais tout particulièrement les enfants dans les rues et les enfants dans les daras, notamment les talibés. Donc ce projet tourne autour de cela et nous tendons la mai à toutes les bonnes volontés de ce pays, du Sénégal, de l'Afrique et d'ailleurs, et de l'Allemagne pour essayer de donner euh, vraiment permettre à ce projet-là d'atteindre ses objectifs. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal comme niñ ko waxee rek di gërëm ki nga xamante ne moom mooy Mila ak sama danseurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw gars yi nga xamante ne liggéey rek lañuy def waaw ñëwaat nañ pour suqal suñu réew pour jàppale suñu réew ñun danseurs yi ndax danseur da nga war a am foo xamante ne fa nga toll ci yëg-yëg sa sa dëkk projet bi nag wax nañ ko. xam naa ne dama ko yeggale ci euh, olof rek pour euh, sama mbokk yi mën koo xam euh, dañoo jëkk pour projet bi pour jàppale daara yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ne ak xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci mbedd bi lépp pour jàppale leen ñu ànd seeg suñu jigéen bi nga xamante ne daa jóg dëgg bu sori ñëw fi pour jàppale ñu si accompagner ñu si ñuy woo ñi nga xamante ne ñoo nekk géejawaay képp koo xamante ne yaa nekk géejawaay nga ñëw jàpp ci projet bi jàppale ñu si ku ci mel ni Racine Talla Ahmed Aydara Baydi Ba Modou Gueye le maire Aline Sall waa Géejawaay yëpp ak ki nga xamante ne moom mooy Alassane Mbaye li nga xamante ne moom mooy griot des VIP nga xamante ne dimbale nit rek la fi nekkee jàppale nit ki ñu ngi koy woo ci projet bi man doomam rakkam maa ngi koy woo ci projet bi ku nga xamante ne jabaram maane mbaay tamit dafa yéwén ci ay xale bëgg ay xale ñu ñëw pour jàppale xale yi def benn concert fii ak euh, dëkk Mila pour euh, jàppale xale yi lépp recette bu ñu ci am mën ko yóbbu yi nga xamante ne xale yi nga xamante ne euh, xaw nañ am problème ñu dimbali leen ci bépp fànn ñuy woo képp koo xamante ne mu ngi fii rek pour mu jàppale si. weeru koor gi tamit dama fàtte weeru koor gi dañuy def wàccee kaamil mooy artistes yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ak ñi nga xam ne ñoo dëdd ñoom ñëpp dañuy def benn wàccee kaamil def ndogo yoo xamante ne dañoo permettre daaw dañ ko defoon. bii mooy euh, troisième année troisième année bi dañ koy yóbbu ci daara yi yóbbu ko ci mbedd yi séddale leen ko waaw ñu ànd ceeg euh, Mila euh, ak waa Géejawaay yëpp képp koo xamante ne daal projet bi soxal na la bonne volonté nga ñëwal jàpp ci ñu leen ciy woo seen i doom seen i xarit seen i artiste ñoom ñoo leen ciy woo. waaw inspiration bi. yow xëy na yow sax warulaa bett ndax invité woon nga ma expliqué naa la ko nee naa la man dama bëgg. esprit partagé dama ko bëgg të artiste laa donte artiste laa duma jël sama bopp rek ne artiste laa lu ma neex laay def il faut que ma def loo xamante ne ëllëg tey bu ma fi jógee dañ naan Issa mii defoon na ci aar bi lu baax mooy que ne damay jéewi ji su ma jéewi ji damay gis xale yi ci mbedd bi ay xaaj guddi laa leen gis ñuy daw gàddu seen pot te yaakaaruñu kenn ah, tàllal loxo lañ yaakaar comme ñun kay artiste lañ te dañuy dugg fu ne ñu bëri xam nañu ñu jéem a dajale nu ñu leen dimbalee ba nga xamante ne dootuñu tàllal seen loxo dëgg la mënuñu lépp ndax Sénégal fi mu nekk nii boo nee boo nee euh, euh, ñi nga xamante ne ñooy jóge ay Mali di wàcc fii wàccee camion ay xale ñu wàcc fii ku neen ñu ne la jaaral nii jaaral nii ñu tasaaroo si dëkk bi dafa metti te xale mooy dooni mag ëllëg te moom mooy doon ki nga xamante ne ëllëg mën naa téye li nga xamante ne mooy abub réew moo tax il faut que ñu dimbali leen jàppale la inspiration bi mooy bu ma jógee euh, GIE ji dama leen gis ñuy taxawaalu si mbedd bi ma ne pourquoi lii nag waruñu see ñëw dox ci wax ci dimbali leen ma ñëw ànd seeg euh, ki nga xamante ne mooy Mila mu ñëw tamit moom it loolu mu jaral ko ba nga xamante ne dafa ñëw Sénégal pour bokk ci projet bi moom it moom loolu mooy rôle ndax moom dafa bëgg xale bëggul xale bu souffrir kon woo maanaam woq woqatu bu daje gestu la te yàlla nañu yàlla may tax tawféex ak taysiir ak najaa nga xamante ne képp koo xamante ne bonne volonté la nekk fii géejawaay ak foo mënti nekk boo déggee suñu kàddu nga ñëw jàppale jàppale ñu. waaw sama moromu fecckat yi mu nee naa leen euh, bu ñu ragal aar du da nga ciy nekk nga yàgg ci euh, rek perte nga. na nga teg sa tànk fi nga war a teg sa tànk loo bëgg lu xàcc boo gis wërsëgu waay la ak lu mu yàgg-yàgg day ñëw te ñu xippi seen bët xool ndax nit ñi nga xamante ne ñooy tigal liggéeyloo ñii nekk ci ginnaaw seen yaay lañ yaakaar seen papa seen dañoo am ay jabar am ay doom war leen soutenir ñoo xamante ne tey dañ leen di téye di leen liggéeyloo ay deux ans quatre ans naan leen ay contrat contrat contrat bu ñëwee xale yi dañuy bëgg daw te xale bi war naa mën a dem géeyu ji contrat am ñibbi si fii nii ah Sénégal jàppale réewam mais lu tax ñuy ragal lool c'est parce que ne booy dañ leen di souffrir sonn loo leen fecc loo leen bañ dagg ñu yaakaar ñu tas seen yaakaar il faut que ñu xëppi seen bët xool bu leen kenn benn dugal ci benn loo loo bi mooy que ne bul yaakaar nit ba nga xamante ne bu la defoo lenn danga koy defoo naa la yóbbu tournée du ma la fay noonoo non bu ko def taxawal xàcc boo gis nee naa la yàlla bu la wàccee defal na la wërsëg fii ak fële yaa ngi dégg lii sa wërsëg ala kulli fii da nga koy jot boo gëmee sa bopp mais nag boo nekkee nii di ñaafu dëkk yi dañ lay téye toroxal la ci biir nit ñi ñàkkal la fayda am na lu fi jaar fan yi koo xamante ne dafa daw ñëw taxaw yaayam taxaw di ko woo vocal naan ko dawal pourquoi il faut que euh, état bi nga xamante moo nekk Sénégal ñëw taxaw fii jàppale artistes yi artiste bu mën a dem mën a dellu si xam nga tey jii kii bu demee ba ñëw accompagner artiste de Guédiawaye loolu fierté la Guédiawaye la fierté Sénégal la kon tey jii ñun ñoo war a gëm suñu bopp taxaw ndax ñii ñun ñoo leen mën a bégal te liñ leen di bégal suñu yaram lay jóge suñu condition lay jóge kon nañ gëm suñu bopp bu ñu kenn dugal fenn fi liy tàggatoo mooy gërëm sama gars yi rek am na ñoo xamante ne nag ñëwaguñu ndax tamit fii Sénégal manque de moyen bee tax am na ñoo xamante ñu ngi war a ñëw mais fi ñuy jógee dafa sori ñii ñëpp fi ñu jógee dafa sori lii kese newu fi am na yeneen danseurs yoo xam ne dañu war a ñëw mais problème de moyen manque moyen bi la moo tax ndax képp koo xam ne bëgg nga ñëw fii am na ñoo xam ne ñu ngi jógee ba Casamance am na ñu ngi jógee boo xam ne ba Fuuta yaa ngi dégg nekk ci projet bi danse bi waa dafa yaatu mais manque de moyen la te manque de moyen bi suñu état yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ñoo ñu mën a jàppale ñu ñu mën a atteindre def fii si Sénégal loo xamante ne tey xale yi nga xamante ne ñu ngi taxawaalu si mbedd bi dinañ am fa ba ba bërëb bi nga xamante ne dafa dañ fa war a ñu leen di jël ñu fay nekk ñu ngi ñu ngi ñu ngi préparer loolu pour récupérer leen mën leen dugal ci bërëb boo xam ne fa la ñuy nekk di sangu di am ñu leen toppatoo di leen am ñu leen di jàngal ndax kii moom day kii day jàngale yaa ngi dégg te moom dina ci taxaw léegi nag nit nag bu ñëwee pour dimbali sa réew yow ki nga xamante ne yow yaa moom réew bi yow yaay jóg jàppale ko ñii ay xale lañ ñun ñëpp ay xale lañ mais yaakaar luñ ci lu dul aar mais yaakaar ci aar taxul ñu bañ a dimbali li nga xamante ne moom moo nekk mooy sooxe suñu biir réew muy lan xale yi nga xamante ne ñooy doon mag ëllëg ñooy doon président ñooy doon lépp waaw di sant nag ñi fi nekk di leen gërëm di sant euh, sama xarit <laughs> le nouveau marié Aline borom Thiès moom daa jóge ba cees ànd ak Mila jëkk jabaram di sant euh, Mila ah di sant suñu papa Abdourahmane Touré moom mi nga xamante ne géejawaay war nañ ko dello njukkal chaque jour mu ngi jàpp ci géejawaay di dimbali géejawaay di xelal artistes yi artiste bu soxla mu bindal la projet te doo ko fay dara ñu ngi lay sant di la gërëm yow dañu laa war a delloo njukkal yow maa nga fii xëy na duñ ko xam Sénégal boo nekkee fii yor benn xam-xam bi duñ la xam il faut nga nekk koo xam ne da ñàkk fayda ñu mën la xam mais fi nga ko jàpp foofu la ala kulli alin day ñëw day baax di gërëm sama gars yi ñoom Mori Fall euh, Zo euh, Yaxara euh, Vie ñoom ñëpp ak ñi nga xamante ne ñoo ñëwagul éléments yi nga xamante ne ñoo ñëwagul ak yen ñi waa site bi nga xamante ne saa bu ñu taxawee rek ngeen ñëw taxawuñu yaa ngi dégg di leen gërëm di leen jaajëfal di woo ki nga xam ne nag sama kilifa la muy Alsaan Mbay daa mën social ñu xam ko social muy dimbalaate ñu ngi koy woo man. alsaan bokkatuma ak moom loo xamante ne koo xamante ne jàmbur la man dama bokk ci njabootam di ñaanal aj euh, yaayam ajaratu jooja caam yàlla may ko wér gu yaram ak taw féex di ñaanal euh, jabaram séeri maane mbaay maane mbaay di ko ñaanal wér gu yaram ak taw féex euh, waa griot de VIP yëpp di leen ñaanal ñoom ñëpp di woo ñëpp daal ñu ñëw jàpp ci waaw kooku moom damay jox suñu Abdourahmane mu wax ko ko ndax ministre bi war na see ñëw waaw Issa waa wax nga dëgg projet bi euh, ministre de la culture da ci war a jàpp waaye du ministre de la culture kese ministre de la famille de l' enfance ah de la femme de l' enfance da ciy jàpp ministre de la solidarité da ci jàpp parce que projet bi projet social la ministre de la santé de l' sociale da cee war a jàpp ndax euh, ku wax xale wax réew ku wax xale wax avenir président de la république sax da ci war a jàpp donc incha allahu rabbi ñooñu ñëpp dañ leen ko yëgal dañ leen bind officiellement wax leen projet bi ci lan la Issa wax na sànq autorité yi nekk fii waaw euh, mooy maire ay dara mooy rasin Talla mooy moor Wore Gueye euh, mooy maire yi fi nekk yëpp fii ci Géejawaay maire euh, Golf hmm, ñoom ñëpp vraiment ñëpp maire Gounass maire Sam Notaire maire Waxinaan Nimzaat maire Thiaré Djidda Kaw Djidda moodu géey hmm, ñoom ñëpp dañu ci war a jàpp mais même maire yi fi nekkoon tax ku mel ni Aliou Sall hmm? mais aussi euh, actuellement suñu suñu suñu euh, euh, ministre bi ne ne Fatmata Tall di jigéen di njaboot moom it war si mën a jàpp donc suñu autorité yëpp dañ ci war a jàpp autorité étatique yi dañ ci war a jàpp waaw mais artistes yi fi nekk itamit dañ ci war a jàpp kilifa dañ ci war a jàpp ndax dañu bëgg a jàppale xale yu banlieue yi nga xam ne ñu ngi traîner ci mbedd yi te mbiru xale yooyu dafa nekk problème boo xam ne problème bu rëy la xëy na dañ koy gis tout le temps moo tax dérangé wuñu mais bitim réew dafa nekk problème si ñoom bu ñu gisee xale yi du ñu traîner fii Sénégal te tey Sénégal war na dépasser loolu donc loolu il faut vraiment ñun ñu jog ci ñu góorgóorlu ci loolu dafa nekk lu touché Mila ami waaw ba mu bëgg ci vraiment bëgg ci liggéey bëgg ci dox tànkam parce que moom psychothérapeute la maanaam liggéeykat la day liggéey sax ci ay mbiru xale donc affaire bi da ko touché moom loolu mu nekk lu ko yëg lu ko lu ko lu ko soxal rawatina euh, rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo jur xale yi. donc euh, rawatina suñu autorités yi nga xam tamit ñoom la ñu dénk réew mi waaw ñoom tamit ñu war ko góorgóorlu donc euh, mbir mi daal noonu la incha allah képp koo xam ne kilifa nga képp koo xam ne sénégalais nga képp koo xam ne ci réew mi nga bokk ñu ngi lay tàllal loxo ci projet bi pour nga dugal sa loxo ba xale dootu sonati fii ci Sénégal